asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm lu ëpp tuuru te fi mu nekk nii waa Pastef doyal nañu sëkk sëkk sëkk ci xoqatal ak xoqañal gi nga xam ne moom la ñuy teg ci seen ndodd loolu moom moo tax ba tey jiw ci likaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ñoom ñoo ñi di waa Pastef daal di ñuy yónnee ab bataaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir société civile ngir wax leen jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy teg ci seen kaw waa Pastef ci likaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ñoom nee nañu léegi mënatuñu amal ay manifestation ndaxte saa su ne préfet daf koy faral di tere te nag jëfin googu de mën na xajamal lépp lu jublu ci suñu wàll démocratie rax ci dolli ñu ngi bëgg a jël kii di Sonko di ko féetale ci benn waaso te loolu moom baaxul dara waaye waa fa di ci yokk di xamle ne bu ñuy seetaan télé yi wala boog ñuy déglu rajo yi dina am ñenn ñoo xam ne dañuy jël deru Ousmane Sonko di ci teg ay mbir yu doy waar li ni mel moom faw mu daal di dakk loolu sax ma moo tax ba bureau politique bu Pastef daal di yónn bataaxal googu yenn ci ay kuréel yoo xam ne dañuy saytu ak ak yelleefu doomu aadama fii ci biir réew mi ñu dese di ba léegi ak ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir Pastef ndax teew colikaay bii di tribune mi ngi ñee xamal ne ci manifestation ya amoon fa li nga xam ne de moom mooy ca Mbàkke ba mu am ci lu ak juróom yoo xam ne dañu leen teg loxo ñooñu de suñu moytuwulee moom caabi dina leen féete gannaaw colikaay bii di tribune sax ma ngay ñëwaat ci lan la ñuy toppeeku ci mel ni Serigne Assane Mbàkke ak ñeneen ñi nga xam ne dañu leen a jàpp libération duñu xamal ne kii di Serigne Assane Mbàkke moom moo gën a siiw ci ñi nga xam ne la jàpp fële nga xam ne de moom mooy ci diwaanu euh, Mbàkke te it la ñu leen di toppee moom mooy ne dañoo bokk ci ab manifestation goo xam ne dañu ko tere woon ak tamit yeneen mbir yoo xam ne daal daal dinañu koy tekk ci seen ndodd libération di ñu xamal ne ci juróom benn fukk ak juróomi nit yooyu nga xam ne dañu leen teg loxo ñeent yi de ay ndongo lañu lu weesu ñooñu nga xam ne teg nañu leen loxo fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Mbàkke fii ci biir Dakar rawatina nag ci biir cité kër góor gi keroog tamit amoon na ay manifestation yu fi amoon ba sax ñu daal di jàpp ay nit fu mu nekk ni nag ñeent ñi démb ñu ngi leen doon déglu culikay bii di réew mi quotidien du xamal ne procureur la mu bëgg moom mooy ñu tëj leen juróom benn weeru kaso yoo xam ne daal dañu koy tëdd ak fitna gi nga xam ne kon moom la ñu nemmeeku fan yi yëpp culikay bii di critique di ni mel moom loolu la ñu nar a wéyee ndaxte benn at dong de moom moo ci des ngir ñu di amal élection présidentielle fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi xëccoo bu tar moom moo nar am ci diggante ñii nga xam ne kon ñoom ñooy candidat yi ci wàllu élection présidentielle boobu sax dañ ciy des ndax enquête yéen kay tey tey la mu bëgg a xam moom mooy ban tànk la waa benn Bokk Yaakaar fas ne taxawee ndaxte fu mu nekk ni moom bëri na ay kàddu yoo xam ne mu ngay jip eh, ci biir coalition boobu te nag ñi si ëpp ñoom ànduñu ci candidature ki nga xam ne de eh, moom mooy njiitu réewum Sénégal di Macky Sall autolikaay bi di la réveil ne nag ñi bokk ci parti socialiste ci réew mi ak tamit ca ñoom ñi nga xam ne kon ànduñu ci candidature eh, Macky Sall dafa mel ni ne suñu may tuulee duñu bokkaat ci gouvernement bu bees tàq bi nga xam ne Macky Sall fi mu nekk nii ma ngi koy waajal ginnaaw ba CNRA daal di euh, ne tëppeet euh, signalu Walf TV coolikaay bi di la mandat moo ñuy xamal ne groupe Walfadjri ñoom nee nañu nag du ñu toog di seetaan li ni mel lool sax moom moo tax ba am na ay manifestation doxum ñaxtoog toogaanu ñaxtu yoo xam ne dañ ko fas yéene amal ci njaxteelu ay bés bi le mandat kon di ñu xamal ne waa Walfadjri ñoom ab VSD di vendredi samedi dimanche bu tàng jër lañu ñu fas yéene amal fii ci biir réew mi direct news moom ma ngay ñëwaat ci jafe-jafe liggéeykat yi yëngatu ci wàllu hôtellerie ñu ngi koy jànkonteel ndaxte ñoom fu mu nekk nii ba Covid bi ñëwee ba léegi ay jafe-jafe la leen indil rax ci dolli ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite dàqoon nañ ci ñu bëri tey jii nag ñu bëggaat ci ni mu gën a gaawee ñu daal di leen jël te it seen liggéey googu tamit bëgg nañu ñu yokkal leen seen salaire ndaxte fu mu nekk nii ak dund bi nu mu seeree bëgg nañu nag ñu leen jàppale ci wàll gi ni mel wante dafa mel ni ne patronat bi moom faalewu leen loolu nag moom moo tax ba jottali gouvernement bi rawatina nag ministre du travail ngir mu daal di leen taxawu ci biir colikaay bi di Le Soleil suñu naataango yi tey jii seq nañ ci waxtaan ak Cheikh Hamidou Kane nekk ab bindkat bu ñu ràññee fii ci biir réew mi moom yàggul sax ba ko njiitu di Macky Sall daal di joxe raaya grand prix du chef de l'État pour les lettres moom moomu di Cheikh Hamidou Kane di xamle ci biir bi di Le Soleil ne ma ngay rafetlu raaya nga xam ne moom la ko njiitu réew mi daal di jox ndaxte tey jii njiitu réew mi daf ko sigil sigil na it ku ci mel ni Aminata Sow Sow Fall ndaxte ñoom ñaar la ñu boole daal di jox raaya gi ni mel jeexale ko ak wàllu tàggat yaram rawatina nag ak wàllu lamb ak coolikaay bii di sunu lamb ma ngay ñëwaat ci face à face bu njëkk bu amoon ci diggante Modou ak Boy Niang ci seen wàllu daje boobu nag ay kàddu daal di nay jiip ndaxte ki nga xam ne de moom mooy Modou moom daal di xamle ne combat boobu bakkenam la ci tekk Boy Niang 2 di ko xamle ne ñoom ñaar dinañu xeex dinañu bëree combat boobu moom amul Modou Lo combat boobu nag kenn xamagul kañ lañ ko fas yéene tëgg a fës mesdames et messieurs bonjour trop c'est trop semble dire les partisans du leader de PASTEF qui disent non à ces violences et violations graves des droits de leur leader Ousmane Sonko en effet nous disent nos confrères de Sud Quotidien traqués de toutes parts par le régime en place les partisans du maire de Ziguinchor se tournent vers les responsables Euh, des organisations de défense des droits de l'homme et dans une lettre adressée à ces derniers, le bureau politique du PASTEF hausse le ton pour dénoncer ces interdictions systématiques de leurs activités politiques et cette vague d'arrestations de leurs militants. Et les partisans du maire de Ziguinchor exigent l'arrêt de ces agissements inacceptables qui mettent dangereusement en péril la paix civile au Sénégal, considérée pourtant quelque part accompagné d'une campagne de diffamation et de diabolisation à relents régionalistes, d'une tentative soutenue d'intimidation et de harcèlement moral par les forces de défense et de sécurité, de menaces de mort et d'attaques physiques, d'agressions contre leur convoi et de diverses entraves à la liberté de circulation. Donc, le parti PASTEF hausse le ton pour dénoncer toutes ces violations dont est victime Ousmane Sonko. Et nous restons avec les partisans euh, du parti du journal Tribune qu'après la manifestation de Touba, 65 personnes ont été arrêtées et ces 65 personnes, nous disent nos confrères, s'acheminent vers la prison. Dans le journal Tribune, nos confrères nous disent ce qui est reproché à Serigne Hassan Mbacké et compagnie. Dans le journal Libération, nos confrères nous précisent que Serigne Hassan Mbacké est sans doute la personne la plus connue parmi celles qui ont été interpellées. Et du lycée de Mbacké et tout ce beau monde est poursuivi pour participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens appartenant à autrui, violence et voies de fait contre la force publique. Mis à part ces 65 personnes, signalons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que quatre autres partisans de Sonko qui ont été arrêtés ici à la cité Keur Gorgui étaient hier à la barre du tribunal d'instance de Dakar. Ces derniers, nous disent détention non autorisée et le procureur a requis six mois de prison ferme contre ces quatre prévenus. Donc il faut dire que la tension qui va crescendo n'est pas prête de s'estomper avec les menaces graves qui pèsent sur la stabilité du pays. Pour nos confrères du journal Critique, en plus du bras de fer entre opposition et pouvoir, il s'est aussi greffé une animosité entre hommes politiques qui n'écartent plus la confrontation pour la sauvegarde de leurs intérêts. se penche aujourd'hui sur le sort de la coalition Benno Bokk Yakaar en perspective de la présidentielle de 2024 et face aux incertitudes qui planent sur une candidature de Macky les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l'avenir de Benno Bokk Yakaar et avec les sorties des responsables du Parti socialiste, de Rewmi et de l'AFP contre la candidature de Macky Sall, nos confrères du journal Le Réveil nous font savoir que le chef de l'État Macky Sall Sénégal à la guerre comme à la guerre après la coupure euh, du signal de Walf TV, le groupe de presse ne décolère pas contre le CNRA. Walf et son personnel vont entamer la lutte euh, par des recours, des sittings et un grand rassemblement euh, devant la place de la Nation. Pour nos confrères du journal Le Mandat qui nous en parle, le groupe Walfadjri prépare un VSD de feu contre le CNRA. Dans le journal Direct News, nos confrères nous relaient les complaintes des travailleurs syndicale des délégués du personnel déplore les conditions difficiles de travail dans ce secteur. Le patronat manifeste un manque de considération et de mépris à l'endroit de ses travailleurs, écrivent nos confrères. Et malgré tous les sacrifices consentis par les travailleurs de l'hôtellerie et les efforts du gouvernement pour soutenir l'industrie touristique, le patronat continue de jouer la comédie et le dilatoire. C'est pourquoi l'intersyndicale a dénoncé licenciés lors de la Covid. Le gouvernement, singulièrement le ministre du Travail, est interpellé. Nos confrères du quotidien Le Soleil accueillent dans leur colonne Cheikh Hamidou Kane, auteur de L'Aventure ambiguë, mais aussi Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Dans l'entretien exclusif qu'il leur a accordé, Cheikh Hamidou Kane revient en long et en large sur sa carrière. Il s'est aussi exprimé et c'est pour remercier le chef de l'État Macky qui lui a décerné l'ensemble de ses œuvres le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres pour Cheikh Hamidou Kane. Cette distinction l'honore et l'élève ainsi à une dimension qui dépasse les simples catégories d'humains et le place dans la postérité. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.